daa waxan ne baatub muhammad rasulullah ëmb na lépp lu war gëm ci lislaam boo tegee fee yàlla suñ boroom mu wax léegi nag yonante yi mu jàll si nii nag ci malaaka yi malaaka yi bokk na ci yi ñu war a gëm ci lislaam ndax am na sax ñu leen daan jaamu mbaa ñu leen di jàppe ay doomi yàlla bis borom ne kullun amana billahi da caa teg rek wa malaikatihi wa kutubihi wa yi kon nag mu wax la mbirum malaaka yi ak noo leen di gëmee malaaka ci boppam moom mbindeef la mu soob yàlla mu binde ko ci leeruk boppam malaaka yi nag moom dañoo baree bari ba nga xamee ne yàlla mu leen bind dong moo xam nu ñu toll ci bilim malaaka li ko yàlla sàkkee ci leer dafa tax muy lu set wecc lu leer naññ amul dara lu lëndëm mbaa fatt fatt mbaa dara wuuteeg doomi aadama bu ko defee nag mën nañoo dikke lu ne melo ne mën nañ koo melowoo mën nañoo feeñe ci melo wu ne lañ bëgg soppi koo rek yàlla may na leen ñu soppe ko noona malaaka nag moom des lu wax ne am na góor mbaa jigéen mbaa yu sey tuddu lek wala naan mba sey ni góor jigen di def wala yu ko nuru dañuy ay jaam yalla yu tedd tedd yu sel sel yo xamne ci li leen yàlla binde ñoo moy yalla top digal rek lañ man doomi adama boog jinne su borom dafa bind ñu mëna top mëna moy waye malaak ni ko yalla binde mom top rek la man ta moy dane woon malaaka du lekk du naan mu ne ah xanaa bokk nga ne seenu lekk seenu naan day weesuwut tudd yàlla ak sàbbaal ko rek loolu rek de kon mooy seen lekk mooy seen naan ni nga waxe ci yonante yi mu amoon ñoo war a gëm ci ràññeel ña ci des nag moom jëruñoo ràññeel fii it noonu la mel ci malaaka yi am na ci malaaka yoo xam ne danga war a ràññee seeni tur gëm ne ay malaaka lañu ñu bokkut ak ñoom nag boo jàppee ne yàlla sàkk na yeneeni malaaka yu bokk te ñoom rek mu daal di doy ñi nga war a xàmmee ne ay malaaka lañu jàpp seeni tur te ràññee leen fukk lañu jibril mikail israfil azrail muy ñeent malik ak ridwan mu juróom benn raqib ak xatiit mu juróom ñett munkar ak nakiir muy fukk mu wax na kenn ko ne la ko yàlla féetale jibril moom su borom da koo féetale wax yu moom la yebal mu yóbbu wax yu ga ca yonante ba nga xam ne moom la bëgg moom yàlla ñu wax yu ko jibril moo cay dem mikaayil moom la yàlla féetale lu aju ci wàllu taw bi malaaka mi tudd israfil moom la yàlla féetale wal bufte bi ba yàlla dee tukkal adduna bi moom la digal mu wal bufte bi bu dee dekkal ba tey moom lay digal mu walwalu dekkal ga Asraayil moom la yàlla féetale ñëpp ruu yi kuy faatu rek Asraayil moom la yàlla jox ndigalul mu jël ruuxam raqiib ak xatiit dañuy yaari malaaka yoo xam ne ñoom la yàlla féetale bind jëfi jaam yi lu jaam di jëf rek yaari malaaka yi ñoo koy bind Munkar ak Nakiir mooy ñaari malaaka yi yàlla féetale laajum bàmmeel ak sax koo xam ne suul ñu ko ci bàmmeel waaye daal ku yàlla nam ñu laaj ko rek la ñaari malaaka yi ñoo koy laaj daa am nag ñoo xam ne dee si leen laaj jot nañ koo leeral ci tasawudu shubaan ak ci yeneen téere yi ridwaan mooy bëkk néegu àjjana maalik moo yore caabi sawara ne boo weesoo fukki malaaka yii dangay gëm ne yàlla sàkk na yeneen i malaaka yu bare bare yoo xam ne ni mu la ko waxee woon moom yàlla rek moo xam na lim ba toll waaye du aajowoo nag a ngay jéem a xam seeni tur mbaa dara ci seen mbir aka yi nag am na ci ñoo xam ne suñu borom da leen a féetale yenu arasam gu tedd ga dana wax sax léegi seen tur nga dégg am ci ñoo xam ne yàllaal ni féetale ñu toppatoo ku ëmb ku ëmb rek ñooy féetewoo toppatoo ga am ci ñu yàlla féetale wërsëgu doomi aadama yi ak seeni dund am ci ñu yàlla féetale ci ñoom malaaka yi teggi tiis yi ña nga xam ne tiis dafa leen a dal kon daal nguuru yàlla gi noonu la ko séddalee malaaka yi ñu ci ne am na lu mu leen ca féetale ñu koy toppatoo malaaka yépp na ñooyam ci yàlla musal leen ci mënuñoo jàdd yoon malaaka moom ni ko yàlla bindee du ma bukk jëfe ndigal rekk la man waaye mënta mooy kon na leen fonk ñoom ñëpp te màggal leen xam ne suñu borom ci boppam moo leen màggal ñi nga xam ne ñoo féetewoo yenu arasu yàlla gu tedd ga juróom-ñett lañ dat wa yaa iil dat fa yaa iil sap fa yaa iil xatma yaa iil tamka yaa iil samka yaa iil sasma yaa iil zanja yaa iil ñooñu ñoo yenu arasu yàlla gu tedd ga moom nag nee na boo jàppee seen tur yi mokkal ko bala ngaa faatu gis sa birab ba nga wara toge ca aljana ñoom nag dañoo teet lool fa yàlla ba sax yenn malaaka yi buñ bëggee dolli ko daraja fa yàlla dañ koy jaare ci ñoom ndax yàlla dolli leen daraja gannaaw malaaka yi nga xam ne ñoo yenu gu tedd ga malaaka yi tudd bi yoona ñooy sangi mboolem malaaka yi ci des nga xam ne amuñu genn jote ak ku yàlla yàlla rek lañ amal ak jote malaaka yi nekk ci asamaan ne dañoo wuute ay melo ndax ñi nekk ci asamaan si gën a jege àdduna dañoo amee yi nag asamaan sa ca topp ñi ci nekk amee meloy ngoob asamaani ñetteel ña ca nekk ci malaaka dañoo mel ne tan melo tan lañ amee asamaan yi ñeenteel malaaka yu ci nekk dañoo mel ne ay fas bindu fas lañ amee yi juróomeel malaaka yu ci nekk dañoo mel ne ay jigéeni àjjana asamaan juróom-benneel nag ña ci nekk dañoo mel ne ay doomi aadama ci kaw juróom-ñaareelu asamaan nag dafa am ay kiiraay yu bare bari yoo xam ne suñ boroom def na fa malaaka yu bare bari goo xam ne rek bariwaay ba tax na ñoom sax xamantewuñu wuñu malaaka ya bari gañ bari tax na sax ñenn ña xamuñu ña ca des malaaka yooyu dañoo baree bari ba nga xam ne xamante wuñu sax am na ci ñu xamul ña ca des malaaka yi li ñuy bari bari kenn ku ci ne foo toll yaa ngi sàbbaal sa boroom sàbbaal gu xumb xumb mel ne ak donnu te ku ci nekk nag waxin wa ngay sàbbaale sa boroom bokkut sa moroom ba ca des na muy sàbbaale boroomam dañoo woote ay làng ci seen biir am na malaaka yu tudd almuhaqibaat ñoom dañuy indi ay barke jële ko fi seen boroom di ko wàccee ci mbindeef yi xaaroot maaroot ñi ngi bokk ci malaaka yi ndax suñu borom moo ne wa ma Harut xalal ni bi babil haaruta wa marut kon nag harut ak marut ci malaaka yi lañu bokk dafa ñaan yàlla maynu ci darajey malaaka yu baax yooyu jub ak mujj gën rafet fii ci àdduna ak foofee ci alaxira loolu lépp yàlla na ko yàlla may ci darajey yonent bi nga xam ne moom gën lépp lu yàlla bind mu ñaan yàlla dolli ko teraanga ak jàmm moog mbokkam yaag saxaabaam ya ak képp koo xam ne yaa ngi jéem a roy ci ñoom ba bis